salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi samay wax du fanaan biti de la leen waxoon janna bu lay rek moom da doon wax ne dafa nelaw maanaam da doon nelaw yëgul lu xew six personnes yi ñu jàpp yëpp ak na bu lay kër gi crime bi amee maanaam kër Aziz Dabala seen téléphone yi ña nga fa woon maanaam Nabou dafa xam ñi ko rey ba pare di def sàmbalaa comme moom nekku fa woon moo tax mu doon wax fereeram bi naan ko dàjjil bunt bi ubbil bunt bi ubbil salle de bain bi deux may woo Aziz maanaam lépp lépp lépp Nabou lay xamoon na ko waa dig nag danoo jàpp ne Nabou Leye moom ci boppam xam ne lépp te noonu la demee ba pare day def sàmbalaa ne moom xamul dara comprendre waaw téléphone am dafa nekkoon ci crime bi fi mu amee téléphone bi mi ngi woon ci crime bi fi mu amee six personnes jàpp yépp seen téléphone a ngi woon ci crime bi maanaam kër Abdou Aziz Dabala kon Nabou xam na lépp lépp lu ma leen waxoon du dañ kay